salaamaaleykum eh, suñu mbokk internet yu Kéwoulo TV ñu ngi leen di nekk sa tur ak sant di leen jox seen wàccuwaay tey nag le 21 décembre 2022 ci seen xibaaru bés dinañ fas yéene indi lépp loo xamante ni moo di information comme ni leen saa su ba tax na dañuy dellusiwaat ak affaire wu suite bu tey ginnaaw bi ñu amalee démb audition ak Adji ñu dem xooli Sali Diouf si ay leeral Sali nuyu naa Fatima maa ngi lay euh, nuyu di nuyu mbokk internetu euh, Kéwoulo TV ñu wax rek euh, ci affaire Sweet Beauté ci diggante Adji Sarr at kii di Ousmane Sonko démb nag démb ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr janowaat na woon at ki nga xam ne moom mooy juge Maham Diallo lañ fa amee nag ci audition bi du lenn lu dul ki nga xam ne moom mooy euh, magistrat bi daal dina dégluloo ki nga xam ne mooy Adji Sarr euh, audio yi nga xam ne kee di sëriñam di MC Niass euh, daal dina ko woon enregistré déglu woon nañ ko fee ci audition démb ba biñ ko dégloo ba pare nag ki nga xam ne moom mooy aji Sarr daal dina def ay révélation ndaxte mi ngi xamle rek que ne sëriñam boobu di MC Niass yàgg nañuy déggante ndax yàgg na koy conseillé waaye itam dem na ba di ko proposé li nga xam ne moom mooy mariage pour rek mu retrouver

indiloon euh, Fatima tey. jërëjëf euh, Saliou bu ko jógee euh, dañuy dem si dëkk bu tudd Casamance si benn région bu tudd Diofinsine seen dëkk waaye boobu noonu dañoo ba tax na jigéen yu fa nekk dañu am problème pour traverser pont bi pour ba tax na ñi dañuy dem xool yi sunu naataango boobu nga xamante ni ñu ngi tudd Ange Marie naa la. maaleykum salaam Fatima ginnaaw bi ma la nuyoo nuyu mboolem internet Kéwoulo TV tey nag dañoo fas yéene dem ba fële na la ci Casamance ci dëkk bu ñuy naan Thionkesil ngir wax ci pont bi nga xamante ne moom lañ duppee pont Diourbelette pont bi nag nee na ñu ko tabax ci vers année 1800 te ba léegi nag kenn euh, soppiwu ko pont bi nag tabaxuñu ko lenn lu dul ay bant àll nee nañ nag ci jamono ji ñu toll nii euh, te ku wax euh, jamano ji ni fële na la ci Casamance waxu jamono góobu ceeb jigéen ñi nga xamante nag ñoom ñoo dëkkee ci quartier bi ñuy naan Bantineba tamit nekk foofu noonu ci conkesil nee nañ ñu ngi ñuy ay jafe-jafe yu bëree bëri ndax magetaay bi nga xamante ne pom bi maget na ko nee nañu nag ci fan yu ñu weesu am na benn jigéen bi nga xamante ne mu ngi boot doomam ah, doon jaar ci pom boobu noonu pour dem góobi ceeb mu faxastalu daanu ci biir géej gi moom ak ay doomam loolu waral nag askan askan wi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee foofu ci conge si rawatina jigéen ñi di woote wàllu euh, di artu autorités yi ngir ñu jël si ay matukaay euh, dinañu topp cas bi topp évolution euh, jafe-jafe yi nga xamante ne femmes yi ñu foofu noonu buñ ci amee lu bees tamit diñ ci dikkaat ak ay images lii lañ indiloon tey ci jafe-jafe yi nga xamante ne jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ci quartier bi ñu naan Bantine ba teemu nekkee fële ci conge si ñu ji jamono ñi nga xamante ne jamono góob ceeb la foofu noonu ci Casamance. merci beaucoup Ange Marie euh, Sambou comme euh, ni ma la koy faral di waxee saa su ne euh, Kéwoulo TV yéen a fi nekkal mbokku internet bi ba tax na lépp loo xamante ni mooy information bu leen soxal soxal population waa Kéwoulo TV dañuy dem ba foofu si ay leeral indi leen ka si rapport Cour des comptes soxna maaleykum salam Fatima ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan yëpp ci Kéwoulo TV tey nag ñu fas yéene rapport Cour des comptes bi nga xamante ni dafa dafa jàpp ministère yu bëri dañ ci tànn ñaar bu ci mel ministère de la santé bi nga xamante ni Abdoulaye Diouf Moko moo ko dirigé ak ministère du développement communautaire bi nga xamante ni Mansour Faye Moko ko dirigé léegi dañuy tax am taxaw seetlu ci ministère de la santé bi Abdoulaye Diouf Sarr dirigé dañoo génne rapport bi dafa génne que ni état du Sénégal daf ci ñàkk lu 983 millions 450 mille yoo xamante si ni dafa amoon ci biir euh, force Covid 19 bi biñ koy xeex ay njuuj njaaj yu ci amoon yoo xamante si ni yu ci mel ne ay marché de gré à gré euh, di sur di surfacturer ay ay ay ay marchandises yoo xam ne jënd nga ko maanaam nga jëndee 500 dans les 750 nga jëndee ak yeneen ak yeneen yoo xam ne génn na ci loolu nag waral professeur Ngouda Mboup daal di jug daal ni dañoo war a une information judiciaire maanaam état bi dafa war a autosaisir reconduire ñu top li ba xam lan mo waral état bi ñak ci tant de millions ak lan mo waral njuuj njaaj yi am daanaka li nguuda mbub wax lolu tamit le rapport des comptes wax parce que rapport des comptes rapport de la cour des comptes tamit daf né nañu top au moins 10 personnes yo xamanté ci ni ñu ci nguur gi que ça soit mu nekk ci nguur gi ak ñi nga xamné impliqué wu nañ euh, ci wax ji li nak day indi indiwaat beneen laaj parce que li du premier rapport bi amna tam rapport bu ñëkkon génn muy rapport de l'IGE muy bu inspection euh, générale d'État bi nga xamante si ni dafa jàppoon caisse d'avance bu ville de Dakar gis nañ ne rapport boobu mujjul fenn ñuy taxaw nag di seetlu ba xam fan la wànnent di mujjee ak ay gëtam Fatima. I'm going to need to get you to the end of